bismillah sàcc ndënd day ah. yomb na waaye foo ko tëggee mooy jafe dëgg la tribune yéene kaay ne ngeen lëg roppalaan de avion présidentiel bu bees ba day waaw dama ne la werante ba saay bu ñu xëe muy gën di neewi ma ngay yokku de parce que Thierno Alassane Sall nee na gis nga jëndug avion présidentiel bi lée vraiment mënu ñoo tere lekk de te nekkul tamit farata waaw Thierno Alassane Sall yemu ca ndaw yaa ngi ni lée seen yaakaar jool suuf yaa ngi mel ni kon lek man le bor bi nga xam ne kon moom la réew mi amee saay bu ñu xëe muy gën di yokku ñàkkub kaaraange gi am ci réew mi lé doy na waar sàccub jur gi nga xam ne moo am ci yenn ci ay gox-goxaan doy na waar bu ñu jugee naan ay avion bale dafa màgget loolee ay mbirum caaxaan la njiital république des valeurs yemu ca ca tribune yéene kaay waaw dépense yu amul bopp amul génn la laa la wax te dara na kon da caa leerul lépp ci ndoddal sénégalais yi lée lii daa ñaaw sax indécent Abdou Mbaw ci direct news ne adada adada dama ne la Macky Sall mi président de la république bu Sénégal lay jëndal avion Abdou Mbow mooy wax la tey moo yéene kaa ne en tout cas waa forum civil day waaw ñi ngi naqarlu lëndëm lëndëm gi nga xam ne moo am ci jëndug roppalaan googe montage financier ba waaw Birahim Seck ne dama ne il faut que ñuy respecté fii ci Sénégal laa la wax parce que bu doon wàllu njàng meeg mi la éducation gouvernement bi xaalis bi nga xam ne kon ma ko cay def day gaaw yaakamti ne wàllu njàng meeg mi la def nañ ci moo tax askan woowee duñ leen waxoon avion bi ñaata la jar looloo jar a laaj nag loolooy coow la Birahim Seck yamu ca ndaxte nee na gis nga buñ nekkoon ci ab république boo xam ni kon buñ respectante la waaw est ce que sax jaay ab avion boo xam ni kon dafa màgget et avion bi kan moo leen ne dafa màgget le quotidien yéene ka ne xanaa xamoo leen ne Pointe Sarène googe amoon nañ ci client ah waaje daa fay juróomi milliards ba ah, waaw termine yéene ka ne da koo mujj teg suuf maanaam avion bu bes président France kon da ko tegal te souf nag la la wax Hollande moko yekati won waw waaw Bougane dani dey ci yene kay gi waw neena bo len beugé deug deug dëgg dey yelewan kat la wo xamni bu ama am xaalis la sax un mendiant riche ndax te ginaaw nak mu jógee daw fune ne suñu bor bi la ñu ko dégg waaw mais yow yaa nar a avion bo xamni ne juróom benn fukki milliard lay jar ci dim rew yo nga xamni nak len di yelewan ay abi man sa la cruz yow tàllal loxo di yelewan te yoru garaanga yoo xam ne toll na ci juróom ben fukki milliard jiital gëm sa bop ga dey tey ne ko mais monsieur le président Macky Sall daa mel waaw may wax ñu naan ay secret défense alalu militaire seen waruloo ñaata lay jar waaye genre avion yooyu adduna bi yëpp xam nañ ne dana laal juróom benn fukki milliards te du da ngeen di nëbb waaw da ngeen di nëbb waaw continuer leen di nëbb waaye danañ xam lépp waaye monsieur le président xanaa gën a gàtt xam nga ne laataa ngaa jënd kon sa jooje di avion bi kilo ndawal day di yàpp juróom-ñetti téeméer lay jógee na ci treize mille dem ci quinze mille ñetti junni lay jar ah non non non non non monsieur le nga ko ndax ñàkk xam-xam lu goo xam ni moom nga bëgg wala di ko provoqué waaw ci toroxtaange coono woo xam ni kon moom la askan wi lay di dund waaye xam nga ne bu dee lu diw lii na juróomi litre bi day jógee na ci juróom-ñeenti téeméer dem ci junni ak ñeenti téeméer allahu akbar laaj waa nga ca ak sa juróom benn fukki ci ay salle de classe yoo xam ne ay sac maquette la ak ay grinding ak ay néegu ñax abri provisoire waaw boo ca defee fanweer ak ñett ci milliards yo loolu saafarawu ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar yi des dañ ci tabax juróomi junni ak ñeenti téeméer ci ay case de santé ci biir réew mi yëpp allahu akbar njiital gëm sa bopp ne ko mais monsieur le président Macky Sall est ce que xam nga ni boo bëggee xaalis bi lee mën nga cee wutal ñaari million ci ay doomu aadama liggéey ci wàllu mbay mi lee bugaan ngay dani ne ko monsieur le président Macky Sall ak sa juróom benn fukki milliards yi nga xam ne moom ngay jëndee avion bi lee waaw mën nga cee defar lu tolloo junni ak juróom ñaari téeméer ci ay forage yoo xam ne lu tolloo quatre cent cinquante mille ci ay tool diggante Jolof Kayo bawol siin saalum loolee doon na tax ba Moussa Dramé marchand ambulant bi nga xam ni ci manifestation 9 mars yi la ñu ko rey du jugee nag maanaam ca ndoofaanam gaay ngir ñàkkub dox ba dëkk ci réewu taax bàyyi saalum te monsieur le président Macky Sall xam nga ni sa oto bi lee may baax la muy jar moom la oto ministre France yëpp boo dajalee di jar allahu akbar te jarul sax ngay nekk nandite est xam nga ne benn oto ministre Sénégal benn oto kese mooy njëgal bi lée doo ci dellu ginnaaw waaye bu yàlla defee ma fallu ci 2024 sa roppalanteraa nga kii danaa ko jaay ngir ñu saafara ci suñuy problème ñun sénégalais yi nga xam ne dañoo amoon yaakaar si sa yoonu yokkute gu doy waar googe nga xam ne tey moo soppeeku nekk yoonu yàqute sur quotidien ne atu politique bi day bokku ñu xalaat ci avion bi te jamono jooje waaw coow ngi mel ni dulleeg male ak élection locale yo ubbil enquête yéene kaay nañu xale yi day ñoo la wax waaw waaw ndakaaru njaay jël joom day élection locale ya kan mooy nekk capitaine APR ci Dakar en tout cas Abdoulaye Diouf sar capitaine bu légitime la de Amadou Ba leader la bu am charisme yor na xaalis teg ca Aboubacar Séddiq day mbaa du mooy troisième larron ba Tiwaawoon day am na borom léegi ah, direct news ne Abdoulaye ngay ngallu day wa Tiwaawoon tan nañ ko no and defar ya nee nañ mooy sen candidat mom Abdoulaye ngay mo ngallu momé waaw nee na bu dee wutal hôpital de bax malik ay matériel wutal ay étudiant fuñu dëkk jënd appareil éco échographie ci poste de santé kër ma sàmba sall bu dee loolooy ger ma xam ne danañ continuer di ger waat yaa woon ndakaaru njaay jajoo gi la xalifa babacar sall ci l'observateur waaw nee na na guma kenn laa la wax te kenn du ma dégg ci débaawu candidature xalifa sall wax de évidence yéene kaay ne ca jurbel day ngaarim werante ak xeexee daal ak xulowee jeex na daam joob moom leen jiital ndey njaay atlanta nee na zahra iyane thiam day une femme de valeur la zahra iyane a si ngeen boo xam ni daa gëm la muy def te nekkal fi askan wa te caa box boobu li Badar Mbacke wax na Cheikh Oumar Diagne lu bariwul parce que surtout Serigne Touba xëy di attaqué ngëm-ngëmu doomu aadama ñi ne askanu murit nag mënoon nañ koo réglé ci lu gàtt lool waaye def ndax askanu jàmm lañu en tout cas te kanamu Touba ba Serigne Touba njàmbaarte dëgg la fa wane tribune yéen a direct news ne teere nekk ca aéroport de commencé nañ leen a jaay de mardi dali l'observateur ne gis nga teere yooyu nekk ca aéroport Dakar gi lée xama ñaata lañ leen di jaay grâce yi nga xam ni kon dañu koy accorder prisonniers yi Sénégal day am na loo xam ni daal justice mënu cee dara dama ne la ab vide juridique moo ca am dëgg la suñu tribunal bi lée am na ñoo xam ne dañ leen di xañ grâce présidentielle violeurs yee terroristes yee waaye boo bëggee dégg dëgg lenn mënu leen a xañ dara nga googee di wàllum grâce <laughs> ay États-Unis ak yeneen réewu occidentaux yooyu day ay drogue ay mbirum pétrole yooyu moom duñ ko fooye moo tax ñun tamit suñu pétrole bi duñ ko fàtte de parce suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la jël